mu ñëw fii ci mosquée omarienne ci àjjuma ji président de la république Bassirou jomay fay li mu ci jublu mooy wéyal li nga xamante ni tàmbali na ko mooy seeti këru diine yi ndax solo bi ñu am si suñu réew ci noonu kon la yegsee jaboot gi dalal ko ci bopp ba Thierno Madani Tall di xalif général wax njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye mu dal ak jàmm ci noonu ñu àndandoo julli juma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 ñaari rakka yi nag bi mu noppee xalif général yëkkati na kàddu Thierno Madani Tall ñaanal président Bassirou Diomaye fay waaye tamit sant ko ci ñëw bi mu ñëw euh, ci jumaa ji ànd ak ñoom ci julli gi gannaaw ñaan yi nag am na ay kàddu yu fa jëm rek ci jumaa ji waaye tamit taxawaayu nguur gi ñaari kilifa yi ku ci ne yëkkati na ci kàddu grande mosquée omarienne ci ajuma ji foofu le président de la république Bassirou Diomaye Faye jullee ànd ci it ak njabootu taaleen xawatina it xalif général bi nga xam ni moo di xalif Thierno Madina Tall moom mu yëkkati ay kaddu sant gërëm président de la république rafetlu it taxawaayam bi nga xam ne mu ngi koy taxaw jàpp jëm ci wàllu wàllug diine ji ñu déglu Thierno Madani Tall kon nag son excellence président de la république sabab bi mu ngi bàyyee ko si président Léopold Sédar Senghor liggéey Ceerno Seydou Nourou si réew mi liggéey Ceerno Seydou Nourou si Afrique liggéey Ceerno Seydou Nourou ci àdduna wërngal këpp liggéey Ceerno Seydou Nourou waat si wàllu social def na si loxom bu baax a baax moom Thierno Seydou Nour Cheikh Oumar ne bërëb bi bërëb bu mu soppoon la bërëb bu mu bëggoon la ne kër gi loxo état mu ngi si ne état moo joxe bërëb bi jullit yi ñoo tabax jumaa ji ne président Léopold Sédar Senghor cant ak ngërëm ñeel na ko président Léopold Sédar Senghor foog ñu sant ko si bi ñuy teg premier pilier pierre si jamono président Abdou juuf la président Abdou Diouf si jamono yooyu def na si téeméeri million gannaaw loolu président maître Ablaye Wade président Ablaye Wade tamit def na si lu rëy si jumaa ji fi nekkoon président Macky Sall def na si liggéey ju rëy ni doomu julli di def président Macky Sall def na ko ni doomu sénégalais di def def na ko waaye histoire bu gàtt bi loolu lañ lay wax yow son excellence monsieur Bassirou jomay fay ñu daa bu nekk sa teraanga su yow président yow yàlla indi na la nga nekk suñuy doom loolu dañ siy bég dañ siy kontaan ñu ngi leen di ñaanal si boor bi wax leen amin yàlla na yàlla def leen ay njiit yu baax njiit yu baax ay njiit ya nga xamante ne dañuy def ba lépp yemb lépp daal di ñoŋ te ay njiit yuy yërëm seen population ak mboolem réew yu ñu wër yépp ngeen dundundo ak ñoom jàmm ak salaam loolu moo ñuy njëriñ loolu mooy njëriñ suñuy njaboot yi ñëw ne borom bi lépp lu mu dogal rek loolu la suñu borom lépp lu mu saa lu mu tànn ñëpp dañ si war a ànd kon nag borom bi lim la tànn nangu nañ ko te bégg nañ si kontaan nañ si ñu ngi ñaan borom bi waxal amin président mu ne sa toogaay yàlla na yàlla baaxal sa toogaay yàlla na yàlla kàttanal leen jàppale leen ni ngeen jiite réew mi ngeen jëmale réew mi kanam mboolem njaboot réew mi daal di jëm kanam yàlla bu leen yàlla gàcceel benn yoon bu leen yàlla bu leen yàlla gàcceel benn yoon yàlla bu leen yàlla gàcceel benn yoon ne taarix kër gi histoire kër gi ak taarix lenn ci réew mi ak taarix lenn ci Afrique Cheikh Umar wax dëgg yàlla def na ci loxoom de bu baax a baax Cheikh Umar Fuuti def na ci loxoom bu baax a baax ne téere bi xalifa bi yor téere Cheikh Umar la mu ngi tudd safinatu saadati gaalu texe ne téere bi mu ngi mu ngi duppee gaalu texe Cheikh Umar moo ko bind si loxoom ne imaam nga daal di ko jox président de la république ne réew mi ne réew mi ne ñu yéeg si gaalu texe di téere Cheikh Umar bi di gaalu texe ne gaalu texe biñ jox yàlla na teer si jàmm ak salaam incha allah Sénégal ak jullit yëpp ñëpp na yàlla na leen yàlla def si gaalu texe ñu teer si jàmm. président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye foofu ci juma ji nga xam ne moo di grande mosquée omarienne son excellence moom it yëkkati kàddu ngërëm ak sant. ñi nga xam ne ñoo di njabootug Cheikh Oumar Foutiyou Tall waaye it tellu na wax ni lépp loo xam ne jëm na ci wàllu liggéey yi nga xam ne sumb nañ ko ca foofee ca grande mosquée omarienne nguur gi dogu na ngir yeggale ko ba fi nga xam ne fa la war a yem te lépp li nga xam ne yi teewu luñ ko soxla ko it dina ci taxaw jon naka noonu ñu déglu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye xalifa gi di ci teg imam bi ci teg ñëpp ñi nga xamante ne ñëw nañu ci bés buy nga xamante ne farata la ñu ñëw mottal ko ci ñi nga xamante ne mën nañu ko di sant bu baax a baax ci bi ma yàlla maye ma mën ko fekkee ak yéen tey di sant yàlla tamit ci gannaaw bi ma mayee ma mën a julli ci wetu xalifa gu tedd gi mu doon ku ma dalal ci jumaa ji nga xamante ne moom fàttali na taarix gi ñu jàngee ci histoire bu mu nettali ne ñi nga xamante ne ñoo ko samp te ba ci ki njëkk a jaar fii ni fii du maison des jeunes maison des grands la ba ci ki nga xamante ne moo ñëw ba fii doon koo xamante ne sax bokkuñu woon diine mu jël ko maye ko ñu samp ci égu yàlla nga xamante ne ni nga ko waxee ñépp ko bokk donte wax nañu mosquée omarienne la waaye moski jullit gi yépp la ni mu doone jumaa ñépp ci ñi nga xamante ne mos nañ fi jaar te fekkantewuñu fi ñi nga xamante ni ñoo koy fréquenté tey ba ñu fi nar a ñëw ëllëg te xëy na sax ñenn ñi judooguñu war fee am bés ñu ñëw julee ji fi jaamu fi yàlla ñaan ko fi noonu mu mel ci taarix di dem te du jeexate abadan mel na ni kiñ ko tuddee tamit noonu la mel ci xadara gi te ñi nga xamante ne ñu ngi ci sufiyanke xam nañ bu baax li may wax kon moo tax bi ma egsee imaam bi nga jullee ba pare wala sax laata ngay egsi ma nuyente kilifa gu tedd gi def ma ne fii tey yaa fi waroon jiite mu ne ko noo tey moom damay nangu ni taalibe la doom la waaye tey damay nangu ne sax te nag sa jaam la <laughs> mu bari nag loo xamante ne baaxe na mu ko ci waxtaan ci suuf mu doon tamit loo xamante ne lu ma nar a bàyyi xel la di leen ñaanal yàlla may leen wërgu yaram ak gudd fan ndax bari ngeen njëriñ lool ci jaam yi bari ngeen njëriñ lool ci réew mi ci li feeñ ak ci li nëbbu loolu moo tax respect bu ñu am ci yéen fu ko nit xayma rek romb na ko te fu respe bi commence yem rek xëy na foofu la cofeel bi tàmbalee sax di dem ndax cofeel gi gën a bareeti da ngeen ñuy suñu da di suñu kilifa di suñu weeruwaay ci zaahir ak ci baatin ndax seen taxawaay ci jamono ak seen taxawaay ci teel ñu course di ñu ñaanal ci lu ñu fekk lu ñu fekkul moo tax ñu xam lan mooy seen valeur te jàppee leen ko ba tax na réew mi ñu yàlla nattoo tey teg ko suñu loos dañ ci am responsabilité lépp loo xamante ne lu baax la ñu fekk ko fi fu ñu ko émele rek ñu war ko mën a jël yóbbu ko fu gën a kawe foofu pour ñeneen ñi ñëw ëllëg mën a tabaxee foofu dem muy ci rafetal ci diggante muy ci jàppale leen taxaw seen wet ba li ngeen namm ci diine gi yàlla matal ko ndax ku bëgg a defar réew da ngay defar doomu aadama te ku bëgg a defar doomu aadama ci diine nga koy jaare dégg naa bi ngay wax taarixu jàkka ji sax sànni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 wala mu nekk feneen fi nga xamante ne am ngeen fa yéen a def leneen. Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république may fàttali moom président de la république ak délégation ñu ngi jullee ci fi nga xam ni moo di grande mosquée omarienne nag tey la woon ci boori euh, tisbaar naka noonu it président de la république dalal na ki nga xam ni moo di ndawu ko président Adama Barrow bu Gambie kooku moo di Mamadou Tangara. moom président Adama Barrow yónnee bataaxal président Bassirou Diomaye Faye di ko gërëm di ko sant ginnaaw bi nga xamee ni fan yee ñëwoon na tukki si foofu ca Banjul waaye it xam ngeen Gambie day waajal sommet bu mag ñu dippee ko sommet bu OCI di war a dajale lépp lu jëm ci wàllu umma islamique foofu ca Banjul 4 ak 5 mais ñeenti fan juróomi fan ci weeru mai la war a amee waaye it Sénégal. mi ngi ciy dugal loxoom bu baax a baax di ki jàppale mbokk yi nga xam ne ñoo nekk foofu ca Gambie ñoom it waa Gambie dellu nañu di jaale président Adama Barrow ginnaaw bi nga xamee fan yee ab accident dafa amoon ab solda bu Sénégal bokk ci écomique muy soldat yi nekkee foofu mu ngi faatoo nag ci accident boobu moom soldat boobu diggante Kër Ayib ak Kafanda moo tax Mamadou Tangara indi woon itam njaal bu président Adama Barrow bu Gambie bi mu génnee ci audience bi moom ministre des affaires étrangères bu Gambie waxtaan na ak Seydina Omar Ñing dama ñëw fii si euh, ndigalu président Adama Barrow di président wu Gambie si rakam xaritam président ba Diomaye Diakhar Faye di ko delloo njukkal si tukki bu mu def Gambie bokk si njëlbéenu tukki yu mu def bu mu nekkee président tukki boobu nag wane na mbokk bu nekk si diggante Gambie ak Sénégal ñu waxtaan lépp fànn yëpp lañ waxtaan ñu seet fépp loo xam ne am na jafe-jafe ñu seen naka lañ koy saafara ñu jox ñu ndigal nag maak suma mag suma jigéen pour ñun ñu liggéey si ak équipe technique bi ñu fexe ba nga xam ne ñu digal seen kàddu incha allahu rabi si lu yàggul dinañu toog ñu lépp loo xam ne jafe-jafe la ñu seet naka lañ koy saafara mu digal ma tamit pour ñu ñëw laajte ndimbalu Sénégal si sommet bu ñuy organiser mooy sommet euh, bu OCI Sénégal organiser na ko ñaari yoon donc fii am ngeen expérience bu mat sëkk si ni ñuy organiser sommet Gambie nag mënul sumb dara mu mut si Sénégal dugalul loxoom loolu moo nekk tànk yi te président joxe na ndigal pour lépp loo xam ne Sénégal mun na ko def pour jàppale Gambie pour sommet bi ñu réussir ko ñu def ko loolu nag aada si suñ gox bi saa yu ñu amee dara dinañ dëkk yi nga xam ne ñoom lañ dendool ñëpp dinañ dimbale si biir loolu Mauritanie indi na ndibalam Maroc jàppale nañu waaye ñun dañ jàpp ne lépp lu ñuy def te Sénégal du gisul loxoom motul mu sant mu diktal ma tamit pour ma ñëw jaale mu jox ma lettre mu ne naa ko jox suma loxo si loxo président parce que am na ay soldat ñoo xam ne ñu am accident si nu kër ay bi euh, mu am kenn ku si faatu ñu ñëw ñu ñëw jaale ba pare ñaanal ñi nga xam ne gaañu nañ si yàlla may leen wér mun a seen njaboot si jàmm ak salaam. Mamadou Tangara moo di ministre des affaires étrangères bu Gambie di ganuk Sénégal 21 avril 2024 Serigne Cheikh Diop moo di premier prix bu récital bu Coran bi moom la jël foofu ci Rwanda xam ngeen lu toll ci juróom fukki nit ak benn ñoom ñoo doon xëccoo boobu le prix doomi Sénégal bi di Serigne Cheikh Diop yóbbu prix boobu. moo tax nag teer nañ ko teer bu mag fii ci Sénégal ci maison du Coran bi ñu dippee Sénico nguuru Sénégal jàngalekat yi ak ñëpp delloo nañ ko njukkal ginnaaw boobule jaloore bu rëy bi Serigne Cheikh Diop def ca Rwanda Fatoumata Safane mu doon ndam lu bees ci Sénégal lii nag di raaya bi nga xam ni rek dañ ko amal ci concours international ngir liir alxuraan ki nga xam ni nag mooy Serigne Cheikh Diop daal di koy jël bi mu ñibbisee fii ci Sénégal nag daal nañ ko rek teeral nu ñuy teeroo buur. concours bi euh, ñaari étape la woon première étape bi moo nekkoon demi-finale yi nga xam dañ doon test pour segg ñoo xam ne ñoom ñooy dem ci final bi yàlla dogal bi ñu njëkkee def test boobu noonu ma jël première alhamdulilah. Euh, ci cinquante et un personnes yoo xam ne ñoo jóge woon ci trente pays euh, bi ñu demee final itam yàlla dogal ma jëlaat première alhamdulilah. waaw bi ñu ah, euh, bi ñu ko yëgee dañ ci kontaan lool moo tax itam ñu jël initiative organiser cérémonie bi maanaam teeru ko aussi teral ko ndaxte association ànd liggéey daara li ko tax a jóg mooy ñoo xam ne daara bari na ay jafe-jafe. waaye dafa taxaw. mu doon concours boo xam ne nag ci wàllu arxuraan la woon amee foofulee ca Rwanda moom mi nga xam ne nag mooy sénégalais bi ràññeeku fa nu am solo. boo xoolee réew mi ñi fi nekk ci li fi nekk ci ay daara bari na waaye borom bi subhaanahu wa tànn la ci biir ay dongo yu baree bari defal la tawfiq nga mokkal alquran defal la tawfiq nga mën a génn toog ci mbooloo mu yaatu nga mën a jàng alquran te tiitoo waaye rafoo. nga xam ne yàlla moo nekk ci gin moo nekk ci ginnaaw loolu kon ñu sant yàlla bu baax a baax di sant mboolem koo xam ne taxaw na jàppale ñu ba loolu am tey jii. ay professeur am famille wam ñi nga xam ne itam ñoom la daara yi ñoom ñëpp ñëw nañu rek ngir sargal ko. gagné na xay Maroc demoon na Kenya gagné woon fa troisième defe na na Sénégal it gagné fa deuxième waaw moom bi moom ñeenteel bi concours international. maanaam moom xale bu bëgg jàng la daal moom xam naa. ministre de l' nationale nag yónnee na itam ka nga xam ni moo ko fa représenté woon ba tax nag wax na itam li nga xam ni rek moom la état du Sénégal nara teg ngir nag gën a jàppale ñi nga xam ni ñooy yëngu si daara yi. suñu kilifa di Moustapha Mamba Guirassy ministre de l' nationale bi nga xam ni yàlla dafa dogal. mu jiite lépp luy jàng ak jàngale Sénégal daal yi nekk ci biir yàlla dafa dogal tey jii may wax yenn nekkul ci réew mi euh, président soo nekk excellence monsieur Bachirou Diomaye Xaar Faye yaakaar nañu ni effort yi état du Sénégal doon def ngir suqali njàngum alxuraan mi ci Sénégal am nañ yaakaar ni régime bu bees bii ñëw bu yokkul du wàññeeku am nañ yaakaar bu baax ci dina yokk ci seere yi fi jub lépp mu nekk yitte joo xam te ni ñor na ko ba première sortie bi mu def te jumaa ja la ko waxee di ndokkeel waa daara la ca topp mooy gis ngeen ni premier conseil des ministres mu jël décret créé lu tudde direction des affaires religieuses et d'insertion des diplômés en langue arabe waxal ko boppam Serigne Cheikh Diop nag dafa bokkoon rek ci li nga xam ni mooy concours boo xam ni lu tolloon ci juróom fukk ak benn candidat ñoo fa nekkoon jóge ci lu toll ci fanweeru réew ci biir àdduna bi moom nag prix bi nga xam ni moom am na ko rek dafa rek daa di gën a wane xarañ bi nga xam ni ñi nga xam ni ñooy sëriñu daara yi ñu ngi koy amal fépp ci biir Sénégal. di tokkale Serigne Cheikh Diop moomule di ñaan euh, mu jikko boobule ndam di ndamu Sénégal xam ngeen. accident bu doy waar bu tiis moom moo am fële ca boor yi Kaffrine naka biig daanaka la am fukki nit ak ñeent ñàkk nañu seen bakkan ci saa see saa fukki nit jot nañu am itam ay gaañu gaañu yu méttee métti am na ci ñeent ñoo xam ne dañ leen mujj yóbbu sax ci fi nga xam ni moo di bloc euh, opératoire bi nekk ci hôpital bu Kaffrine ñeent fukki nit ak ñeent it am nañu ay blessure mel ni daal accident ba doy na waar lool Ibrahima Ndong pneu bi nag lañ jàppee ne moo waral mbir yi bi ñu xoolee nag constat njëkk yi lu nu mel nag lay firndeel muy oto boo xamante ne nag oto transport la bàyyeekoo Ndakaaru wutale fi nga xamante ne moo di région bu Kédougou li nag daal di am 19h jàpp 19h30 ci fi nga xamante ne moo nekkee Yamong Mbadianeen nekkee ci département bu Koungheul ci Twitter ki nga xamante ne nag moo di njiitu réew mi mu ngi jaale askan wi nga xamante ne tey jii ñoo nekk ci dëj bi. lu ñu constaté ci accident bi mooy fi mu amee tali bi baax na tali bi yaatu na tali bi am na signalisation tali bi amul benn jafe-jafe te amul benn virage ak yu ñu demee am na toute la signalisation nécessaire kon wàllu tali moom kenn mënu ko wax ci wàllum accident bi leneen lu ñu seetlu mooy ci wàllum oto bi dañu ñëw fekk pneu pneu yi toj mooy ñaari pneu yi si kanam waaye bu njëkk a toj bu indi accident bi mooy pneu droit bi nekk ci kanam moo njëkk a toj. mu pour chauffeur bi perte contrôle am euh, lu mu yaboon bare na deful surcharge par contre euh, cinquante neuf nit ñoo nekkoon ci biir oto bi mooy chaise yi nga xam mooy chaise assise yi euh, bagage yi hauteur bi chargement bi jaar na yoon amul jafe-jafe bu ci wàll woowu waaye seetlu nañ ni buñ ma xoolee pneu yi nu mu bindoo wax dëgg yàlla am na ay jafe-jafe ci wàllu pneumatique bi lu tax pneu bi toj nag ñaar mën na ko indi pneu bi am na jafe-jafe waaye excès de vitesse mën na indi pneu bu toj parce que frottement tali bi fa ak jamono jii ni mu tàngee frottement tali bi ak pneu bi adhérence bi ñàkk am loolu mën na indi pneu bi toj su ko defee chauffeur bi dootul mën a maîtriser oto bi mu indi jëye. gannaaw at bi nga xamante ne accident amoon na ci ñi bi ñuy limaat beneen accident boo xamante ne méttiwaat na lool ci fi nga xamante ne moo di Koungheul ci jamono jooju nag ñu jëloon ay mesures yu mucc ay ci wàll wi ba tax na kilifa yu bees bi mi nga xamante ne moom la ñu dënk wàllu dem ak dikk bi. jàpp ne léegi nag doy na sëkk ngir ñu taxaw ci mbir mi. ci wàllum pneu yi yaakaar naa ne loolu yëkkati woon nañ ko ci ba ñuy def conseil interministériel bu amoon daaw bi nga xam ne accident bu gën a métti bi amoon na ci même accès bi nga xam ne fii si Sikolo amoon ak sa ngën saar ak eh, sakkal euh, ñu ni woon pneu yi nga xam ni ñu ngi leen di jëlee bitim réew nga xam ni occasion la laaj na ñu dakkal ko wala ñu xool nuñ koy réguler ci dakkal boobu ñu ne woon ministre di commerce nga xam ne lépp luy wàllu importation moo ko moo ko moom moo ko gàlloo na waxtaan ak acteurs yi étatiques yi waaye acteurs yi nga xam ne ñoo nekk sous secteur pneumatique bi ñu xool naka la ñuy indee problème boobu donc loolu mesure à moyen terme loolu à court moyen terme donc loolu ñu ngi ci yaakaar naa ni jot na nag ñu baral jéego yi ci wàllu pneu yooyu parce que toujours mi ngi indi ay jafe-jafe. ku yi nag xam ne li nu lu métti la ba tax jamono ji nag ñu ngi wañu ba léegi ñi nga xamante ne ñoo fi ñàkk seen bakkan ci jamono joojee nag ñëpp di ñaan ñi nga xamante ne ñooy jaar ci yoon wi ñu ciy dawee ndànk ba noppi daal ndànk di jaale rek euh, njabootu ñi nga xam ni ñenn ñi ñàkk seen bakkan ci accident bu métti boobule di ñaanal ñi nga xam it am nañ ci ay gaañu gaañu yàlla jàppale leen ba ñu jógaat dellu seen i njaboot di fàttali ministère de la santé et de l' sociale am na ab xayma boo xam ne jot na koo def lu toll ci juróom-ñetti fukki nit ak juróom-ñett nekk nañu ay nit ñoo xam ne am nañ ci ay loraange ci accident boobu la fukki nit ak ñeent ñàkk nañ seen bakkan fukk yi am ci ay gaañu gaañu yu metti metti ñeent ña nga ca bloc opératoire hôpital bu Kaffrine am na ñeent fukki nit ak ñeent ñoo xam it ay gaañu gaañu yema mbaay la ñu am waaye ñaar fukk ak juróom-ñaar jamono yi ña nga ca hôpital ba fukk ak juróom-ñaar dañ leen yóbbu ci centre de santé. bu Koungheul muy accident bu doy waar boo xam ne mi ngi am biig foofu ca boori Kaffrine di wéy ci xibaar yi ñi jëm xam ngeen ci fi nga xam ni moo di Médina Gounass foofu ca boori Tambacounda xew-xew diine la bu mag boo xam ne at bu jot day faral di am am ci nag ay commerçant yu bare bare yoo xam ni dañ ci profito it eh, di jaay ngir nag eh, mën a am loo xam ne daan ko yóbbu seeni kër foofu ca daaka bu Médina Gounass mel ni nag njaay ma dox na lool ci ñoom foofu ca Medina Gunaas Coro Dieng atum ren lu romb 80 agents la ñu indi fii ci Daaka Medina Gunaas ñoom ñii nag ñi ngi def seen këmtalaay kàttan ngir lépp lu nga xamante ni wàllu électricité la cité religieuse bi matale ko. installé nañ lu mat si 25 kilomètres BT 400 points lumineux loolu yëpp buñ ñu ko xaymaa mu mat investissement bu mat si 450 millions. donc centrale bii ñu nekk nii. moom mooy matuwaay bi njëkk moom kese mën na alimenter daaka bi parce que bi ma laajtee léegi daaka bi mi ngi woon si daaw ay quatre cent je pense de pointe aujourd'hui centrale bi rek dem na ba un méga maanaam ëpp na ko teg na ko ñaari yoon lu ma ci édition daaka bi ñu génn mën nañ jàmp toll ci mille deux cent abri amoon na yooyu yëpp lekk def na këmtulaay kàttanam ba nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu électricité manqué wu ñu ko daaw xayma woon nañ lu tolloog junni ak ñaari téeméeri daaka yu ndaw yoo xam ne ñoo ñoo ñoo composé daaka bu mag bi te am na daaka yoo xam ne jotu ñoon am courant te ren Senelec def na extension cinq kilomètres si si daaka bi yi xam ne actuellement nii daaka yu ndaw yëpp courant bi commencé na fa yegg ñoom demb lañu commencé di wàcce branchement yi si yenn daaka yi te fu mu toll nii démb si journée démb bi rek wàcc nañ branchement wu juróom fukki daaka ren nag mu am coppite bu ndax lu toll ci cent cinquante ménage maanaam ñu nga xamante ni seen loxo jotu seen ginnaaw dinañ leen jàppale ba ñu am woyofal social. si dañuy profité aussi période yi di def lu ñuy wax woyofal social muy programme boo xam ne def nañ ko ak banque mondiale donc si lu mat 750 personnes ménages vulnérables ñoo xam ne seen loxo jotu seen digg ginnaaw dinañ fexe di profité si événement yi pour ñoom ñu am courant Senelec financé leen ko jël Senelec jël na dispositif yëpp daal. ba ginnaaw bi ñu demee xool liggéey ya ca daaka ba ñoom nag daal dinañu ñëw fii nga xam ne mooy kër xalif Thierno Ahmed Tidiane Ba daal dina leen ñi ñaanal waaye tamit ñaanal Sénégal yëpp.